Gano duruyor. Bıbı duruyor. bébé bébé dëggal bébé dëggal. bébé dëggal kan ngay kan ngay kiyal face à face. Torodo. Torodo Torodo waaw. Mm. lan nga xëy lan nga di ko dénk rek di ñaan yàlla di ko ñaan jàmm di ñaan ñëpp jàmm di ko ñaan jàmm bu suuf rek incha allah di ñaan yàlla suturaal ko ci kaw Elzo laa indi. moom mi kan lay bëre. moom mooy bëre kii yooyu sax. borom borom tur laa jàpp jëm maa jàpp tur bi sax. Ah. waaw. lan ngeen di waajal. ñoo koy waajal fu ne ñoo koy préparé. yéen fan ngeen jógee. ñoo ñoo ngi jël yëmbal pël woo. pël woo pël woo lañ jël. ngeen dawal seen mën a ñëw. dawal machine bu fi ñëw incha allah. gars lan ngay wax si Falla Balla. waaw Falla Balla jàmm ak salaam rek di ñaanal jaas yàlla may ko ndam rek. ah waaw. lan nga say conseillé. loolu rek laa koy conseillé mu dee rek. waaw yow mbër nga wala. ah yooyu mbër mais Idy lañ indi waa. ah Idy mu nangam. yow yaay kan may Fidja Malaw. Fidja Malaw Fidja Malaw Fidja Malaw. Fidja Malaw waaw. ah Idy lañ indi Idy doole. lan nga koy conseillé yow. Idy moom lan la nga conseillé. dem na Casamance. ju de joolaay yaa ma dégg déggul joolaa mu jàpp joolaay daan leen jël nag bi dem Fatick dem noonu bu ñëwee fii ci benn moment da dem na mais góob yi ma rek. waaw ah. lan nga see wax sama waay. yàlla nga xam Idy doole. ah jàpp daan rek wóor na suñu baax daan la xam nga daan. bilaay mënul daan la ma. waaw amul lu yàgg sax. sama waa ji. waaw. ndax. naaj kay. lan nga lay conseillé. li ma koy conseillé jàpp daan rek. waaw. loolu yow mën na de. waaw kii naa daan la jàpp daan. kii kii àndal xam nañ ko moom. kii naa daan xam nañ ko. Ah. waaw entraîné na. entraîné na nag. naaj. Hmm. waaw sama waa ji nee na dem na Casamance. waaw dem na fépp. Bravo. Nice. Allá con, con mi Adi. Alam nga kayo? Dam rek, dam rek. Waaw. Lan nga koy conseillé? Jàpp daan rek, kon dam ji. Jaajëf. Saya kan kayak ini. Izin, izin pernah kamu. Izin doang. Ya? Wah, izin wah. Nah, oke, okay. mungkin juga. Mungkin ya? juga yang beli yang beli wah. Kan kita kuasa. Ya? Kalau izin amul itu kuasa, dan aku mau terek, dem dem dem dem rek japat dan ini bi. Tamal lagi kau parem, lol mau ikut insya Allah. Aja. Say. Ya, ya, Ron bidel bisa. Ah. Ya, ya, ya, ya, mama kuah. Wow, mama kuah. Ah. Oke, sebaya sewaye. Cuma down, moo ko daan ko xanaa. saa yi ah lu yomb amul fi de. ah dig géew gi moom lu yomb amul. loolu baax na. jaajëf. mbër présenté tali tali Grand Dakar aslem 5 Baye Gaynde benn tali bi mu dëkk Bisséri waa Tablo Xaarim waaw ñoom ñëpp waaw lu koy bëggee toro da rek maa ngi lay woo ci làmb ji. mais mbër dina xees. man la pël bi pël bu ndaw bi doo ko dégg man la tooroo bi day daw rek. waaw ah. bu ma gisee nii français naa de mais bu ma ngeemoo dof laa de. lay wax nii. wax sëñ baam français laa nii de waaye nga pël bi génn na. Ah. waaw. lan ngay wax sama adversaire. kii loom lu mu def daanu. di bi benn Eh, jàppante bu garaaw. waaw lii la ci làmb ji maanaam loolu rek la ci làmb ji. nga waaj da ngaa dóor mu wàcc de. waaw loolu la am ak sëñ Bamba loolu ci làmb ji. sax gis naa damay bañ yàq làmb ji naa moo dóoree làmb ji yegg. mais moom lii rek la ci làmb ji waaw sëñ Fallou yàlla baax na bu arbitre sifflé bilaa la 17h ah. balaa 17h05 ma yeewu. ñëpp ma daal xam naa ne loxo bi dis na. waaw kii crise bu ma la gën a dis loxo dama kaa duma daan incha ngay wax waa ñaatali waaw maa ngi bi Grand Dakar di woo waa asalem Baye Gaynde di woo surtout waa jaamu gën sama koñ tabla xaadim tëli maam jaara di woo waa jaamu gën yëpp di woo tam sama benn grand kunta di woo sama wa booy cëbaroo yëpp 37 fou yi bàyyiwuma kenn waa bi waa Bisab bàyyiwuma ci kenn ñëpp nañ waaj lamb lamb capital mais soo nee jàmm gën moom Sida dafa nekk de. waaw gën koñ man waaw loolu loolu sama ya mau tax juga jam gue aja guys rajo ber yi waaw maa ngi. mbër nuyu nañ la. waaw ziar taw bi présenté wul. tadi seetu Fass eh, oh. ada ñaar tali écrit Fass. waaw. ana Gris Bordeaux. Gris Bordeaux Ada Fass. Ada Fass taw bi lépp jaamu kay. lan ngay conseillé lan ngay wax sa adversaire. waaw sama adversaire lu ma koy wax. di ko rek mu ñëw lu mu super rek. mantan bëree ma su bëree ma daan ko jël wala su loolu ay dama war firi la bu ma war a lekk rek. Ah. waaw ndax soo ne da nga koy lekk. waaw. ah est-ce que. aja baa ngi nii de. Ah, mafia bi la lay wax. gars waaw waaw waaw xaaral ma ñëw sama waa ñun ndam rek la ñu war a incha allah ci kàttan yàlla. Ah. pour ngeen jógee ñun ñaar lañ ñaar lañ. waaw ànd ak gars yi biscuiterie waaw lépp ñun. lan ngay conseil sa waaw saa yi moom xam na lu mu war a def moom moom li ko war xam na ko am lu koy xaar xam na ko waaw mbër bu mbër bu am yar la waaw ñu nekk booy ba màgg nii di ànd ak moom ci ci jàmm lañ ko xamee fair play waaw lu baax daal lañ ko xamee daal mbër dana xeesew saa ah mbër waaw bu ko jaree de ah. bu ko laajee rek loolu rek lay def doole mu ñoo mu doole su taxawee ñu fekk si ko dara moom lay jël saa fu mu nekk nekk fu mu laa dañ jëli jëmm ko ko leer nañ laa la wax. Hmm. du yàgg sax. dégg nga foofu de seconde. dañoo nekk. maa ngi sant yàlla bu baax lépp jàmm. sant bu baax alhamdulilah. saa yi sànq jàppante nga fi jàppante de. waaw noonu la mënut ñàkk quoi. Hmm. Hmm. lii rek la taf ci lamb ji. moom bëriwut ak yow saa waay lay bëreel. dafa tiit rek dafa yaakaar ni mën lay bëreel. moroom mu dóor ma nii mais jaaro bee ma def nii lii ragaluma ko. da doon jéem a xam ba xam damay natt loxo bi ba xam loxo diis na wala diisul loxo bi dara ne ko ci. mais mais nee nañ yaa ko yaa ko sotti ndox quoi. comme sama yére bi moom moo ma njëkk a ma sotti ko. Ah. lamb la rek. lamb ko daj la rek. lamb ba daj. mais du daj dara. xeeru géej la fiy fekk wow koŋŋ. jaajëf.